mbokk daara ji asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu nuyu mboolem kilifa yi daare daayira bi yëpp ñu jiital kàddu ziyaara ñu jéggalu ci kàddu yi ñuy bëgg yëkkati seen kaw kàddu ginnaaw bi ñu ci seen digal ñu ngi jéggal ñëpp di ziyaare Oustaz Modou suñu oustaz ak mboolem oustaz yi ne ci biir yëpp rek incha allah nuyu président yëpp incha allah tey nag ñu dellu ci waat ci programme bi ñu amal ak allah من عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سام رمضان ثم أتبع ثم أتبعه ستا من سوالي كان صيام الدهر صحيح البخاري من جلنا جي أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه يلنقو يالغرم من أن رسول الله جلنا جي أنت يالبي sallallahu alayhi xaala mu wax ne moom yonent bi mu ni man saama képp ku woor ramadaanu weeru koor ku woor weeru koor gi yëpp ba mu mat ginnaaw ci loolu nga topp ko ak juróom benn fan yi nga xamante ne ci moo ne ci zawal ginnaaw weeru koor gi mu ni mel ni kooku kat mu ngi kam am na kaana kasiyaamu dahr mu ngi am yoolu képp comme ku woor at bi yëpp abi ayibul ansaari moo ñu nettali mu ni jëlee na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni yonente bi nee na képp ko xamante ni si woor nga weeru koor ba mu jeex ginaaw ba ñu waree nga topp ko comme ni ñu koy waxee di gunge ko ak juróom benn fan yi nga xamante si moo topp ci weeru koor gi mu nekk ci zawal mu ne kooku kat mu ngi mel ni ak ko am yoolab ku woor at mi yëpp xaalis boobu nag mu ngi nekk ci Sahihul Bukhari waaw loolu daal lañ la loon tey abi ayibul moo ñu ko nettali jële ko ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonante bi sallallahu alayhi wa na ki nga xamante ni si woor na wooru koor ba wooru gi jeex ba nag bu ñu waree mu topp ko ak juróom fan yi xamante ni si moo nekk ci weeru zawal mu ni kooku am na yoolu ki nga xamante ni si comme daa woor at bi yëpp yal na yàlla defal dégg bu ànd topp yal yàlla nangu suñuy woor nangul suñuy jaamu yàlla دفن نكو سيني تيري جيف تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انو يال دفال دغ اندك توب ني ني دون واخ اك ان اريد الى اصلاح ما استطعت وما توفيق الا بالله عليه توكلت واليه انيب والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته